yaay soppe yënnan bi Mouhamadou Abdoulaye Thiam joyeux anniversaire ñëpp a ngi mànkoo ji la ñaanal yàlla gudd fan wér gi yaram xéwal yu saawaan baawaan nii rek nga mën a mel fulaak personnalité jom fayda am classe civilisé lépp nga boole teg ko nële te am nga ko ba pare waaye nee nga ñoru la lan moo la ñor muy bëgg Seydina Mouhamadou Rasulullah jeex ci moom tàkk sa xel sa xalaat sa personnalité lépp nga jël dénk Seydina Mouhamadou Rasulullah moom rek la ñor moom nga xam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 waaw waaw dagat na suñu boroom mu guddal sa yi lool ci daraja yi nabil mustafa maa ngi maam yàllaay mu guddal sa yi yow soppe nabi baayu tafa jaam baayu nuuraat taxa baayu zakuur ay jaam sopp na تصفى yow sax xamu la ni safali caam yeneen bi téye na ko ni nga def na bee ko waral joyeux anniversaire soppey da be caam joyeux anniversaire Mouhamadou Abdoulaye Caam joyeux anniversaire sopp na bee joyeux anniversaire sama xarit maa la bëggal sama naa la saarafa nabi naa la saarafa al mooy ki ñu nabi naa la saarafa turandoo Mouhamadou Abdoulaye Thiam kooku mooy rasulillah moo bind poème yu bari ci xayrul anbiya kooku mooy rasulillah sept cent cinquante yombul ci Moustapha kooku mooy rasulillah muhammad abdullahi dundal dundal ba mu yàgg lool ci barki waaja rasulullah moo ñu boole xayrul anbiya nabina la sarafa bu guddi gi xaaje ba ñëpp di nalaw ñu ñuy fanaane way rasulallah moo tax ngeen bàyyi seeni nalaw moo tax ngeen di joxe seeni alal ki tax fu ñu dem ñu nuy dalal amana rasulillahi moonu teral yow man sa waay yow mi teral sawaay rasulullah muhammadu abdallahi caam kokoy sawaay moo doo xayrul anbiya asalaamaaleykum asalaamaaleykum man na ko ma way <laughs> damay wax rek waaw joyeux anniversaire sama papa sama xarit suñu soppe suñu sang ndax ki tax nga gën ko wala tab gën sa sang la kon Cheikh Mohamed Abdallah Thiam kooku suñu sang la yal na la fi yàlla bàyyi li nga bëgg yaa ko xam yal na ko yàlla defal yal na la yàlla sàmm sàmm la sàmm sa njaboot sàmm ñu topp si yow ak ñi lay yaakaar fi nga bëgg jublu yal na fa yiw yàlla jublu yàlla yokk sa daraja yokk sa kàttan yokk sa mën-mën yokk yéggali sa yéene ci batki rasulillahi salallahu alayhi wa sallam man la koy ñaanal sama biir xol laa ko tibbee ndax yow danga baax danga nga gore da gën wallahi da gën saa yu ma toogee ak yow jàng lu bëree bari si àdduna bañ naa ba léegi damay sàcc sax say wax di ko wax gillahi teg si nag musuma nangu nit moo ma gën a bëgg rasulillahi waaye yow de saj naa taxaw ne yaa ma gën a bëgg rasulilaay ndax cofeel gi nga am ci moom gëm-gëm bi nga am ci moom ak lépp sa lépp li nga jël jox ko ko rasulilaay kon rasulilaay rek moo la mën a fayal boppam yal na la yàlla jàppale may lu gudd fan wér joyeux anniversaire bés bu dellu si moo neex cee caakoor yi naacee ak ban ak sanaxiiwaa yagami dinaan tinki winkin ting ting boobu japonais la yow daal yàlla na la fi yàlla bàyyi sopp la dégg anniversaire happy birthday to you euh, Mouhamed euh, Abdallah Thiam euh, borom fan fondation Kër Rasoul ñoo ngi lay ñaanal cofeel bi nga am ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba way ko xasida yu dul jeex 570 poème way nga ko yonent bi way nga ko 633 itam ñoo ngi lay ñaanal loo bëgg yàlla yàlla defal la ko yàlla guddal sa fan yàlla sàmm la sa cofeel ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam yàlla na la ko yàlla sàmmal yàlla na nga bokk ci yonent bi di tiitaroo aljana happy birthday to you El Hadj ñu ngi lay joyeux anniversaire